ki nga xam ne Marème fay wax naa leen moom it fu mu juddoo Médina Sabax foofu la baayam yoroon sa ko gerte yi mooy yow paysan yi bu ñu ñëwee onkat onkat la tuddoon onkat onkat la tuddoon baayam da doon dajale sa ko gerte boo demoon bay ba sonn ñëw jox ko bàyyi ji dajale sa ko gerte gi dajale gerte geeg yooyu comme yaay Marème fay nag moom daa ñëw nekk benn genre

nekkate ku ku caga bu bon la takk mais paa bi tam bandi la woon moom tamit paa bi am nu xanaa xam ne Marème Faye Sall famille boobu ku leen teg fii ñoom ñoo raw famille Doudou Ndiaye Coumba Rouge mat nañ 60 seen papa da doon tooñ rek tamit da doon tooñ rek da doon doomu jaambur rek moom tamit <laughs> dégg naa benn benn euh, Mamu maram fay musna dox ci re yi rek benn booy langaamu ci yere ne du ko di yuuxu ne du ko bàyyi gars kurt kurti kurti de ki ne top na mu yobbu ba ci keur gi ñu ne ko euh, ñu ñu ne ko papa mar aso ko jur mu ne la illa ñu ne ko waaw kii kay deret dafa fort moo mu top leen ni ko jur de as moy papa yi Marème aso ko jur de as bo jur xale bobu non la mujjee toge ci keur googu as moko jur non la toge ci keur gi ci mbedd mi football mu langaamu maamu Marème Faye du ko bàyyi mukk papa itam tooñkat bu mag la woon muy aas yaay mun mu takk nag yaay Marème Faye yaay Marème bëgg àdduna di ko sant ay affaires yoo xam ni ay salaire am munu ko mu mujj nag di détourner xaalisu ONCAD bi gars yi def audit jàpp ko mu détourné fa ay milliard ay million di moins ay million ñu jël ko duggal ko ci kaso kaolak bi te kan moko waral yaay marem fay mo waral lolu motax tak jabar xol leen bu baax ni ngeen di tak ndaysan as fay de lolu ko duggal ci kaso tak ben saint ligène bu bëgg aduna dogo ko ci ay affaireu jang affaire médecine yoy médecin soignante yoy ñu affecté ko kawla mu bëgg aduna la ilaha illallah Ni, mu dugg ci ko ko dugal kaso ndax ay ay laaj laaj yo xam ne moom amu ko mu jallo mu jallo mo bon ñu dugal papay maram fay ci kasso bi muy as fay pa mère bi dem di njaaloo ak Omer Seck Omer Seck moom jamono jooju mi ngi urbanisme Kaolack ñu affecté ko fa Omer Seck gis booy bi rek topp ko Umu Diallo xamal ko ne am na jëkkër mais dëkkër baa ngi ca kaso ba Omer Seck doome xaraam ji waa Rufisque la moom baab maire bi ba maire bi gësamu mu yóbbu ko di ko di ko wuraan wang di ko wuraan wang maire bi barde ci Omer Seck Omer Seck mooy papay ñoom Malick Seck yéete taxawaalu fii Omer Seck bardeloo yaay Maram Fay ci sëy bi muy njaaloo parce que fasewuñ ko lettre la mujjee bind yóbbu ko ci kaso ba fekk fa papay Maram Fay nekk ci kaso mu jox ko ne ko damay ñaan baat paa bi ne ko non mais loolu munul ne <laughs> munu ma la may baat pour l'instant dangay eh, bàyyi ba ma génn xanaa mu ne ko non dama lay ñaan baat ñu wax a wax a wax ba sonn mu lànk mu jàll mii bëgg àdduna ba léegi sax daa bëgg àdduna mu ngi ci puus puus de mais ba léegi daa bëgg àdduna AVC la ko yàlla daane AVC yaram bi doxatul puus puus ba bëgg àdduna boo demee boo ko doxaanee bu deful nag mu nangul la guddi boo deful nag nga ñëw nga woo ko ñu indil ko oto léegi ci ci hôtel léegi nga wutaan wan ko mère boobu aka bëgg yu baax te duuf bàyyeekul de mi ngi ci dund ak dee mais ba léegi xam na fu duuf xam na yàpp bu duuf xam na lu baax ba léegi ma nga ca bàyyeekul de adduna rek <laughs> noonu noonu lay dee donc paa bi papay maram fay aas ne lànk ne du ko may baat meer ba ànd ak omer ñu dem taxawaalu wëndaalu ji ba ñu papay maram bu mu génnee justice lañ mujjee keroog gàcce googu gàcce googu umu jàll du ko mus a fàtte bugguma wax tuuru juge bi mais paa boobu dafa yaay fay ba yaay maram fay dafa bëgg a dee ya yaay yaay gàcce yow yaa ñëw def lu mel ni kaw la kaw la nga xam ñépp a xamante yaa fi def lu ñaaw yow yow lii jaral na ko nga ànd ak Omer sa jëkkër ak lu mu daj ba dugg ci kaso nga ànd ak Omer ni nga toroxalee sa jabar ni nga toroxalee ki sa sa jëkkër as as nga xam ne def na ba def lu munut ba dugg ci kaso nga war koo taxaw nga ne ko ñukk na yàq bu naqari di ko indi fekk ko ba ci kaso ba di ko fa indil ay lettre naan ko pour mu may la sa baat demande de divorce ñu waxati mu ne la mayeguma la sa baat nga dem di njaaloo ba dem ba ànd ak keneen kii moo kooku mooy ummi jàll moom moo jur maram fay mii kon Marème Faye bu toogee fii ñu naan ko oyof sër ñun xam nañ lu tax ñu naan ko oyof sër ndax waa footballeur nawetaan Ifragel yi xam nañ ko moo leen doon toggal gars yi ko di ñëpp di ko dëpp ak dëppi ñun xam nañ Marème Faye Sall bu baax baax a baax topp woykat yi moom barde moom bardemaan la woon dafa dafa yàgg barde nag moom moom boo boo nekkee woykat mu barde la boo nawetaan moom moom day topp saison yi bu nawetaan xewee mu nawetaan yi footballeur nawetaan di ko wut ak wang di ko paasante bu woy xewee simb mu topp simb gaynde ñoom njii nag yooyu topp ci e, di di di wëndaal bu woy kotu e, baarmaan yooyu nekk kaw la doon doon wër di woy <laughs> mu topp ci moom dadul taxawaat rek moo tax ñu war a woowee <laughs> mu baaxee <laughs> tànk yi maram dafa gaaw a tëb te yéen loolu ma nga juddoo ca njaga cosaan ndaga bala te dafa foor yéen da foog ne affaire dafa ñëw rek nekk noonu da ngeen di xas kii maram fay di ko xas naan non dafa bëgg fi tànk yi moo oyof fu mu juddoo la tànk yi moo oyof yaayam oyof sër la woon baayam yolam ngeñoo nee naa baayam am na doom yu dul jeex ak équipe nationale baayam am na équipe nationale quarante cinq jours yu taxaw baayam ku sa baay nekk yolam ngeñoo sa yaay nekk oyof sër nga judd ca di oyof sër ah sa waay tamit boo fekkee ab sabar nga tëb ci naaw nga gis madame Faye bu leen ko ko jàppee tamit bu leen ko ko jàppee ku sa bàyyi di yoolam nga sa yaay di oyof sër ah boo ko doon tam dinañ jaaxal moo tax man bu ma toogee di gis ngeen ay Marème Faye eh, damay toog di ree leen ci yàlla ñi bu leen waxee seen background check àdduna tukki du ñu nawle barki alxuraan Marème Faye du nawle billaahi sàcc la xam caaxaan foo wëndaalu joxe taatam point Marème Faye mii moom kese <laughs> Marème Faye Omer Seck boobu nag takkoon yaayam moo ko yóbboon fële nga xam ne mooy Jurbel ni affecté ko Jurbel mu ja Omer Seck jël ja jël jabaru jàmbur yóbbu Omer Seck mooy doomi xaram Omer Seck tamit ku ne nii urbanisme ñu affecté ko Omer Seck dafa jël jabaru jàmbur rek daw ak moom yaay Marème fay Omar sek ñëw jël jabaru jambo papa daw ak mom laaj laaj affectation ñu yóbbu ko Jurbel fofu lako Macky Sall xamé Jurbel affectation Jurbel amer yóbbu jabaru jàmbur ba ni ndaysan lolu mo xana xam lool bok na ci ray as sek as as as fay ndaysan tay as fay lool da ko metti lu diko joy ba faatu billaahi wallaahi loolu bok na ci lu ray papay Marème Faye naqar googu naqar googu bokk na ci lu rey papay Marème Faye da ko misère ba dee ba caddi caddi ba sedd guy barke alxuraan lu ko Omer Seck def lu ko Omer Seck def ñaaw na histoire bi nag yaa doog naa cee wax <laughs> ma dégg ki nga xam ni moom mooy Malick sekk dégg naa muy xataraayu <laughs> ma mola mola na pai sama yaay mola na pai sama ba banyak sama nday mu gisé dama ko ray ha mola gaay ñu dum wax nan mo ba do bay yaay maram fay ngir yalla hmm do bay yaay maram fay ngir yalla boy man la lañu ah non mais boy boy boy malik sek boy mi leg mu xaru ndax yow lu ngay wax ci maam yaayam ni hein umi jallo yaayam ko ah malik yow yak nga ñew vacances kaolak yo xam nga sa histoire <laughs> yaay Oumy Diallo xam nga ko yow Malick yàgg nga ñëw vacances Malick suñu morom la <laughs> Malick Seck bii di bandi bandi lii suñu moroom la doon na ñëw yàgg nga ñëw booy booy yàgg nga ñëw bongre bongre yàgg nga fa ñëw de wala <laughs> nga fàtte ñuy football terrain terrain euh, lu mu si terrain bongre yàgg nañ football foofu booy nga doon ñëw foofu sa bàjjan yi yàgg nañ football pot de lait koñ ak koñ ngay ñëw vacances booy Malick da <laughs> ñoo fàtte mais fàtte wuñ la de booy nga doon jógee Jurbel ñun fàtte wuñ la booy ñu doon football foofu SOS terrain SOS lañ ko doon wooye terrain SOS yu yàgg nañ football foofu may booy wala tey lañ la sàcc ay alal jox la ni ay milliards nga foog ni naaw nga fi non boo on se connaît may léegi naa ngay xatraay di tëñëx tey naa na ah, non kii moo laa na bàyyi sama yaay si la xolam moo ko jàppee doo defee dara yow xam nga ni boo leen daanoo buñ jàkkaarloo gi booy Malick buñ jàkkaarloo doo bouger musoo nekk guerrier tàppet nga musoo doon yaakaaru leen lu lu ci pouvoir bi ay policier gendarme ngeen utiliser ay pouvoir mais yow ñun ñun ñoo la gën a nekk wundu foofu terrain SOS on se connaît my boy après nga dem Diourbel yow ak sa sœur yaa ne fa ñëw am na sa beneen sœur bi fa faat faat sekk xawma nday faatu sekk xawma sa sa sœur yéena fa ñëw vacances sa gàlle bàjjan en face SOS Bongré rue sans soleil fàttaliku lool rue sans soleil man maa ngi dëkk Boustane terrain Boustane ñi ñëw di football rue sans soleil Bongré mu sa connaît my boy rob mo len leen ni ngeen di bandi bandul ci Senegal ni man ay ree ngeen ma def parce que ñun dañ fekk seen demb quoi tapet la won exactement jaar fasek ikat tapet la musa don, mo gisee muy bandi bandul gaay di ma indil ay information nan mi ngi mer nee na nga bàyyi nangam yaa bàyyi yaayam mu <laughs> boy boy bo len daano nga xamni do bandi boo bés boo leen ni 2024 ba ma ñew Senegal, na len won do len bandi xamu leen sax nu ñu doonee bandi billaay wallaay bu bu deux mille vingt quatre soo ko waaye naa leen woon ne yéen ba de yéen xoolal ay moyens ngeen yore woon yu peuple bi di ci xeexee ak rayet mais man sans moyen daa leen tanc nekku leen bandi ñeen di bandi bandilu moo tax nee naa ñooñu ne leen Malick na ma woo moom xam na ma bu baax day dof doflu malik Seck ya, yabuma ay ndayam sax yabuma Marème Faye Sall indi rewandu te reewu leen donc les gars nañ xex nañ farlu gis nga gaay ni ngeen di ay njit ak ay leader yi duñu tous ay lañ ay waga lañ ño newon ci koñi di koso kosa, di am ay diir bu tagni di wokkatu di am ay ŋàppati ngóoloole yéen xamu leen feebar yooyu ay koso-kosaa ay ŋàppati ngóoloole ay arbiis ñu nag ñoom ñoo ko newoon doon doon ko am di xuus ndox mi di am ay arbiis di di am ay ay ay ŋàppati di koso-kosaa garabu wokkatu wokkatu moo soo konee noonu len gisee ñi ngan ngan ñu jox leen ay kat kat ñu mutal di nga xolat sacc ay sacc mak lañ yu mak duñu tus barka alquran mom la leen di wax ci seen procureur bi bala ma dañaa procureur chef d'inculpation Abdou Karim man mo xolé ne kon Abdou Karim doom ni don na fi dara quoi kon Malick sek don na fi dara quoi te yalla kon Marème fay fu nekk ni moy premier dame dal

ñu seen kër ah ngeen rangale ana compte bancaire yi defoon milliard nag fondation bi li mu dajale woon li anam yëpp viré nga ko ñu ci sa compte ah. <laughs> di yor leen li ngeen di yor terrain yeeg gi yëpp kon lépp di dissoudre nga lépp lépp jël nga ko quoi yow yaa ko moom yow yaa ko moom quoi hmm, d'accord <laughs> loolu lépp yow yaa ko moom d'accord gars yi gis nga lu ñu dal ci ñoom Marème Faye yi ay arrivistes yi lu ñu dal ci ñoom Macky Sall yi lu ñu dal ci ñoom ay procureur euh, euh, euh, Abdou Karim ay procureur Hamidou Diouf gis nga yu ñu dal yooyu waratuñu dalati de waratuñu dalati de luñ ci dund dafa doy sama gars yi luñ ci dund dafa doy billaahi luñ ci dund dafa doy waratuñu dalaat dafa war a jeex dafa war a jeex dafa war a jeex de am na ñoo xam ne buñ leen ne dañoo baax ñu ñu <laughs> saaga ndey la Marème Faye dafa baax waa léegi Marème fay baayam dañ ko jàppoon ci kaso bi sekku gerte la yoroon yaayam taxawaalukat la woon waaye ñëw kooku bu baaxee nu ban alal la baaxee baayam bàyyiwulu ko fi fiftin ndeyam bàyyilu ko fi fifteen ñu ne dafa dafa baax il faut nga nekk vrai doome xaram di sa bàyyi di juutu ñu koy laalee ginnaaw nga taxaw di wax ne Marème Faye daa baax bàyyam fukki dërëm bàyyilu ko ko fi ci naqar la dee ba du guy wow kow yaayam ñàkk di njaaloo ko taxawaalu ba mi ngi nii nekk ci chaise ñu ne kooku daa baax léegi wax leen ma nu mu baaxee dama koy dégg ci Sénégal Marième Faye dafa <laughs> man sama baay sama yaay ma baax comment ay ca wax leen question la de dama gis dama daa baax léegi ci bàyyam bàyyiwul ko fukk fukk bàyyam équipe nationale la ko fi bàyyam ay doomu bàyyam mat nañ cinquante bu yaayam taxawaaloo ko wëndaaloo ko njaaloo amul woon dara et infirmier <laughs> waa léegi ba yaayam mi nga noonu waa léegi kooku bu baaxee lu mu baaxee fu mu baaxee kañ la baax jamono ji Macky Sall di wër di wut fonction di taxawaaloo ko wëndaalu taa di tàng ma Marème Faye musoo dégg dafa baax nu mu jëlee nji nguur gi la baax <laughs> ah léegi fu baaxee gars yi <laughs> man question rek laa laajte de question question gars yi <laughs> moo laa woddal kàddu non question rek laa laajte question laa laajte de <laughs> question laa leen laaj dama ne papam naqaru xol la dee yaayam a ngi noonu paralysé nekk ci siège baayam bàyyiwuloo ko fi compte bancaire yaayam bàyyiwuloo ko fi compte bancaire ñu ne daa baax question la nag dangeen mooy tontu na sama gars yi waaw gars jar na laaj mos mais dangeen may tontu parce que ma bëgg ngeen may tontu waxtaan la rek dañuy waxtaan nii ah ñii ñii léegi nan la baaxee fu war a baaxee <laughs> yomb nañoo nax de ah vraiment yomb nañoo nax waaw Marème Faye kon dissoudre na fondation boobu noonu onze ans sans ñu audité ko kon day jàll sa Sénégal xam lañ lañ war a wax waruñu ay yaafi ne day jàll lañ war a wax sàcc na mille milliards day jàll eh fii kii day jàll wala ngeen wutal ko benn terme maanaam fii lépp ay jàll yore fondation onze ans ay milliards day xëy rek sans audit sans audition nga dissoudre ko day jàll loolu lañu ñu war a wax ay yooyu la ñu war a wut ay termes yooyu la ñu war a wut ngeen ku ay day jàll ay day dox de daf fiy dox daf fiy dox wala daf fiy jàll daf fiy dox maanaam sàcc daf fiy dox njaaloo daf dox wurang daf fiy dox war sa jëkkër daf fiy dox yooyu noonu ngeen bi daf fiy dox ngeen di wax daf fiy dox créer fondation ay milliards daf fiy dox daf fiy dox da leen dóor daf fiy dox ay ay ay yow yaa xew ak non non ça passe daf fiy dox duul ba dajale daf fiy dox njaaloo daf fiy dox sàccalaw daf fiy dox daf fiy dox yooyu ngeen war daf fiy dox daf fiy dox Macky Sall moo taxawoon ñëpp taxaw ñëpp taxaw àdduna yëpp taxaw mu ne moom doomam chômeur Amadou Amadou multimilliardaire la fu mu ko jëlee Amadou multimilliardaire la te Macky moo taxaw bi ne sama doom sax somóor la sama neen doom somóor la te doom multimilliardaire la <laughs> daf fiy dox daf fiy dox njaaloo daf fiy dox dul dajale daf fiy dox sàcc rawale daf fiy dox daf fiy dox sa <laughs> ne daf fiy bii dañu war a créer daf fiy dox yee bu ñu la waxee dara ne ah, daf fiy dox mille milliards sàcc daf fiy dox jàpp sénégalais yi di ñuus tëj ci kër yi daf fiy dox daf fiy dox la jaay doole daf fiy dox affaire ba dafay fiy dox la noonu ko lii mooy Sénégal